jëkk ma xam ni. Mhm. mariage yu ki Kiné ak Laye Sow. Mhm. waaye am na lu ci ne waaye. muy yéen. am na lu ci ne ndax ñoom ñaar nañu meloon comme xaj ak muus. gis nga de. comme xaj te mariage bi yàgg coow yu bari waaye daal bu ma fàttalikoo ne man nii. Ah. ah ñun am na lu ñu bàyyi dëkk ba te boobu ba léegi loolu ma nga fa. Ah. yaa ngi dégg ci laa jóg ndànk daal di garde sama pochette dem. waa wax nga dëgg aw ma droit fekk jabar jàmbur di wax ak moom mais lan moo tax nga yow fekk gelu jàmbur. fi ñu gën a seen digënté neex lool nga ne ko doñat dem yobbu ko sa kër ndegam awma droit bobu yow tamit amo droit bobu nag soo ma joxé 1 million. Mhm. ma ne la bu suba jam ma demal la dëkk ba. ñetti fan. suma ñëw ma ñëwee fan bu yobbu nga yoni say mbokk. al alxayri bi day jub. Ah, amu yeen amul wax. wa xam nga nak euh, yaay mhm. euh, manam ndey Ndiaye. man lepp luma def ci mom rek. Mhm. maanaam lu ma deful ci moom rek. Mhm. dama ko amul. billaay dëgg la. te Ndeye Ndiaye sama diggante ak moom yàgg na. waaw waaw fii bëgg naa ko loolu dégg ko ci ah du ma bàyyi du ma bàyyi man lakkat naa oh, bu ma xasee ba ba jàpp du ma bàyyi. nga jóge ca àll ba kenn xamul foo joge ñu héberger la fii. yaa ngi dégg da ngay mën a régler mënoo régler du man xam nga li ma capable. waaw jéem a abalaay moo leen yor yéer yaar yëpp yéen yëpp la suñu yoree war nañu abalaay mooy yor ablaay ñun la la tax léegi nag yow loo bokk ak ablaay ah, lu ma bokk ak ablaay waaw loo bokk ak ablaay lu ma bokk ak ablaay waaw loo bokk ak moom suñu ñaari yaay seen ñaari yaay suñu ñaari yaay seen ñaari yaay ñoo bokk ñaari yaay